xamante ne moo ñu war a defal tey waxtaan bi muy koo xamante ni macha allah ci xam-xam ci du sell ci taalibe ci xam-xam bu yiw bu laabir koo xamante ni diñ ko présenté kenn ndax ñu baree bari ci àdduna xam nañ mooy kan ndax moom koo xamante ni la koo xamante ni bu waxee ñëpp dégg li muy wax ñëpp xam li muy wax ndax lu waral loolu moom muy wax day dund li muy wax te dafa mel noonu li muy waxee moo tax ñu bëree bari taamu ko ci waxtaan yu mel nii thème bi nag mu nekk thème boo xamante ni macha allah bu waa xamante ni dafa ñëw ci jamonoom boo xamante ni ñu bëree bëree bari ñu ngi koy bëgg bëgg koo dund mais xadis nañ ko xam moo tax ñu indi thème boobu di ak taalibe ci ay melokaanam nan la war a comportement woo yan melo la war a am moo tax thème boobu nekk thème bu riis boo xamante ni képp koo xamante ni bëgg naa. dund ak taalibe wala bëgg naa xam ak taalibe incha allah bu ko teewloo déglu ko lépp lu jëm ci taalibe dana ko am kon ñu déglu thème bu baax a baax man koo jëfe bu ñu ko dégloo rek dañu koy jëfe mais ñu dégg ko rek xam ne ak taalibe ni lay mel te jëfewuñ ko loolu amul sens sens bi mooy liñ fiy jëlee ñu man koo dégg ba pare jëfe ko man koo yóbbaale suñ ko yóbbaale nag am comportement yi mel noonu ndax melokaanu taalibe moom ku ne xam na ne nekk na melokaanu riis yu yaatu kon ñu jox suñu Ahmadou mu euh, commencé waxtaan rahmaani rahim wasalaatu wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani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 kilifa yëpp melo yi ab taalibe waaye nag bala ñoo dugg ci waxtaan wi ñu leeral ni taalibe ay xeet la am na taalibe boo xam ni yitteem mooy dab gaañu ak àgg ca àgguwaay ba bokk ca ña jiitu ci taalibe yi nga xam ne ñoom la Sëriñ Tuubaa doon yar ñam doon defar nga xam ne bu leen fekkee wutit mu dab leen kookee nag nga xam ne yitteem mooy dox wuti gaaña ak dab leen ak àgg ca àgguwaay ba kooku mooy ki nga xam ne moo soxla melo yi ñu waaji waxtaane am na nag keneen koo xam ne mooy suñu classe yi nga xam ne ñoom teel nañoo xam ni mënuñoo dabe ngir seenu lompañ ak seenu tële ak seen yitte ju woyof ñu bëgg gaaña rek di leen bëgge bëgg itam mbooleem ña leen bëgg ñooñee nag mën nañoo am mucc waaye ngërëmul yàlla la nga xam ne loolu la gaaye daa àgg ak àgguwaay yañ daa àgg yooyu mën nañ ca bañ àgg kon bu ñuy wax dañuy wax melo yi nga xam ne daa war a nekk ci taalibe bi nga xam ne yitte mooy dox jëm ca yàlla ak wut yàlla taalibe boobu yi nag sëriñ bi leeral na nu mooy kan Sëriñ Tuubaa buñ ko laajoon mën nañ koo laaj moom rek kan moo di taalibe dañuy gis ci mbind mu wax ñu ne idil muriidu laa yuriidu abadan gayra rida rahmaani murit mooy koo xam ni benn bëgg-bëgg la am muy ngërëmul yàlla subhaanahu wa taala wax na ko ci bërëb yu bari wax na feneen ne man lam yurid shay'an siwa mawlaahu yasil lahu wa xayrahu awlaahu cheikh mouhamadul bashir ci minanu baqil qadim minanul baqil qadim wax nañu ne sëriñ bi mu nekkee Touba. am nay jamono mu yebal ndaw lu ñuy wax Abdullahi Jaw ca Daaru Salaam ca fa taalibe ne ne ko boo demee nanga leen wax ne inna man kaanat himmatuhu mutaalliqatan biddunya aw bil axirati mujarradatayni aw ixdaahuma mujarradatan fal yansarif an nii wa ruddu kulla sabiyin ila awliyaihi dafa wax si Abdoulaye Diaw moom ne ko boo demee neel taalibe ya ca Daaru Salaam ne leen koo xam ni àdduna rekk moo ko yitteel na ma fi bàyyi daara ji te dem koo xam ni àllaaxira kese moo ko yitteel na ma fi bàyyi daara ji te dem koo xam ni àllaaxira ak àdduna ñoom ñaaroo ko yitteel na ma fi bàyyi daara ji ta dem koo xam nag yàlla kese mooy yitteem mu toog am na ñoo xam ni bëgg nañ sëriñ bi ànd nañoo moom waaye alaaxira leen tax mooy dugg aljana ca lekk yaag naan ya Sëriñ Tuubaa nag daa teel a wax murid yi ko topp mooy ñi nga xam ne yàlla kese mooy seen bëgg-bëgg nga xam ne jaamuwuñ yàlla sax ngir bëgg àjjana mbaa ragal sawara ndax kii jaamu yàlla ngir bëgg àjjana mbaa sawara bis bu yàlla subhaanahu wa taala waxee ne masalan bàyyi na àjjana àjjana amatul kooku dootu jaamooti murid dëgg nag day jaamu ngir ne yàlla kese mooy yàlla fa maa maqsuduhum jannaatu adnin wala xuurul xisaanu wala xiyaamu na ko waaj waxe kon murit xamee nañ ko ci mbindum sëriñ bi ne mooy ki nga xam ne jenn yitte lay am muy yàlla kese lay wut ak ngërëmam jaare ko ci liggéeyal ab sëriñam ak topp ko kooku ba tey sëriñ bi wax nañu ci majmoo bu mag bii am na fu mu ko ko laaj mu ko kaay ma gàttalal la te mooy al bila i'tiraad wa xusnu zanni fi kulli cheyin wa imtithaalu awaamiri sirran wa alaaniya wa ijtinaabu nawaahi sirran wa alaaniya maa taaddubi zaahiran wa baatinan bi tarki kulli ma laa yaani qawlan wa fi'lan mooy gàttal gàttalu ak taalibe dafa ne mooy topp sab te doo diingat doo dingat doonte dingatub xol la sax doo bàyyi sa xel doo may ci sa doo may sa bopp muy xalaatub safaan ak num mën a mel rek ci sam rafet njort ci moom ci lépp topp ay ndigalam ci lu feeñ ak ci lu nëbbu ay tereem ci lu feeñ ak ci lu nëbbu ànd ak di làmboog ay teggin ci lu feeñ ak ci lu nëbbu lépp lu amul njëriñ nga ne ko ñukk fi suuf moo xam ay wax la walla jëf kon sëriñ bi foofu it gis nañ ne gàttalal nañu ak taalibe xamal ni mooy topp ndigal ci saayir ak baatin bàyyi tere ci saayir ak baatin mooy di sëñ bay jaxate waxoon ne lu dul ndigal amul njariñ te kat xamal ne ab sëriñ du bëgg nit ba fab njariñ jox ko te toppul ndigalam kem loo defal nag sab sëriñ am lu na toll ci njariñ loo defalul nag sab sëriñ boo ko bëggee it doo ko am kon murit sëñ bi leeral nañu ko am na feneen ci majmua bi bu Cheikh Abdoulaat bi dafa wax ne sëñ bi dafa wax ne al muridu man laa yamliku shay'an wala yamlikuhu shay murit mooy ki nga xam ne moomul dara waaye dara it moomu ko du may yàlla subhanahu wa taala takunu muridan summa fiika iradatun fa in lam turid shay'an fa anta muridu loolu sëñ waxoon li fekk yaa ngi am bëggi-bëggi àdduna yu ne ci sa xol di ko di ko di ko dëkke yow doona goo murid li fekk teqalikoo bëgg-bëgg yooyee rek doona goo dëgg dëggi murid kon murid yombul li ñu waxagul nii dañ ci yéegée ne murid yombul suñ bay jaax di waxoon ne bu yàgg ne murid dëgg yombul la yombay nga wax ne man ab murid laa te doo ab murid murit dëgg day dee te déegul asal li dee metti metti jotul ak murit loolu la sëñ bay jaxate waxoon bu yàgg-yàgg ndax wax na ne amaana nga nga gis waa ju jug tëb dal di dee waaye doo gis ku tëb rek dal di def ab murit wax na sax ne gisal waaye ngi jug di dox ci murit ba am ay murit te kat du murit gisal waaye ngi jug di dox ci murit ba dundam nga far jee murit rek murit kon murit ku la ne yomb na mi ngi lay nax murit itam bokk na ci ay meloom yi ñu koy xamee te Serigne Touba waxal wax nu ko mooy li mu wax ne murit du am aada aada yii nii du ko tënk murit leen rek moo koy tënk mooy sunu borom tabaaraka wa taala xaddul iradati bi qawli saada tarkul muridi maa alayhi al aada thumma rujuuhu ila al mu'taadi sëriñ bi tegal nu yoon wi nga xam ne ci la murit bi jaare ki nga xam ne mooy tàmbali ci ak murit la jiitu ci moom mooy mu jàng xam-xamu tawxid mu amee ko mu xam ca lu leer ci suñ borom ci niñ ko war a gëme teg ca xam niñ koy jaamoo doo ko wutib sëriñ nag awalu waajibin ala al muridi tahsilu zaadihi min al tawxidi qabla istigaalihi bil infiraadi bi dikri waxdahu wa bil jihaadi bala ngaa wéet di tudd yàlla ak jàng xasida ak alxuraan lu bari sëñ bi wax na nga wuti xam-xamu tawxid soo noppee nga wuti xam-xamu fiq xam ni ñuy jaamoo yàlla ni ñuy julleeg ni ñuy wooreeg yi ci topp doog caa teg nag wutub sëriñ sëriñ ba nag day ànd ak yow sooboog yow ngirum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di la wommat ci kaw ak xam ak jaamu yàlla di la tërbiye itam ci bàyyi loola aada yi nga xam ne moom la sa xol moo dëkke sa xol kon foofu dal nañ fi xamee lu tuuti rek ci kan mooy ab murit xam nga murit dangay doon jullit ba noppi yi jullit yi def yépp nga di ko def ba noppi doog a ñëw jébbalu doon murit da ngay julli di woor di dem màkk di natt asaka fexe ba gëm dugg sa xol nga doog caa jóge nag ci ñetteelu étape ba nag nga doog a ñëw doon murit boo ñëwee nag ba bëgg a doon murit nag li jiitu ci ak teele bi mooy jébbalu jébbalu man damaa gis ne mooy bu murit gi doo am sart boo xam ne mën ca ñàkk jébbalu lay doon donte am na yeneen yoo xam ne mënta ñàkk ci murit waaye jébbalu mooy jéego bi jiitu te mooy fexe ba am taalluq ci sëriñ bi aju ci sëriñ bi Cheikh Abdul Quddus da ko daa misaale ne dana wax ne sëñ Tuubaa de moo wax ne li kulli man bi yataallaqa naja min kadari dunya fii fi yawmin najaa mooy képp koo xam ne aju na ci man dana mucc te du am jafe-jafe àdduna waaye daal ne foofu li mata li mata xool mooy taalluq mooy ndax aju nga ci sëriñ bi daal di koy misaal ne aju de ni mu leen koy misaale mi ngi mel ne gaar bële fa saxaar yee taxaw boo fa demoon saxaar gi dafa am wagon yoo xam ne day jàpp ci saxaar gi ñu jàppale leen saxaar wagon wu ci jàppul ak saxaar gi nag bu saxaar gi dem da ko fay bàyyi taalluq mooy ñu aj la ci sëriñ bi nga ngoy ci moom ba buy dem yóbbaale la xam ngeen ne Sëriñ bi muy dem ca géej ga bi ñëwee ba Louga mag ñi mu àndaloon am na ci ñoo xam ni dañ leen dugal ci wagon woo xam ni wagon wa jàppul ci saxaar gi moo tax ba saxaar gay dem daleen leen bàyyi kon li jiitu ci ab taalibe bi mooy nga fexe ba sag aju ci sëriñ bi wér te yi tax nga aju ci sëriñ bi yu gàtt la ci li ma seetlu gis naa ne ñett ba ñeenti mbir yoo xam ne lu ci ne dana may aju ci sëriñ bi bu wér la ca jiitu mooy jaayante jaayante ak sëriñ bi wala kenn ci ñooñ sëriñ bi muy sunu kilifa yu baax yi ci yoon wi yëpp rek ñaareel bi mooy jël wirdam ñetteel bi mooy xidma mooy di ko liggéeyal ak bëgg gu wér gu dëgër te dëggu ci sa xol boo xam dalay moom ñeent yooyu bu ci ne dana may aju ci sëriñ bi dana may taalluq ci sëriñ bi li ma jëkk a wax te mooy jaayante moom man damaa jëkk sax ci jël wérdam Sëñ Tuubaa moo wax ci majmuwa bu mag bi wax ne wérd bokk na ci lii maye am amma taalluq fa yaxsulu bi axdil wérdi loolu Sëñ Tuubaa ko waxal boobu mooy wérd muy wérdul maaxoosam bii nii muy wérdu yoonu murit ki ko jël loolu da koy may taalluq ci sëriñ bi Sëñ Tuubaa di wax ne tariqa bu ne ak nit yàlla ku ne boo bëggee aju ci moom jëlal wérdam boo ko jëlee rek di nga am taalluq ci moom moo tax foofu ma jàpp ne kon boobu bokk na ci li koy maye waaye loolu du kese loolu rek mooy maye taalluq ci moom ndax fa yaxsulum day firine dana ci ame waaye mën na amee ci yeneen mbir itam am na ñoo xam ni dañuy bëgg a jàpp wax jooju ne loolu rek mooy maye taalluq fekk wax ji tekkiwul loolu tekkiwul ne loolu rek koy maye fa yaxsulu mooy dana ci amee ma ak hadiya ñaar yooyu dañ maye taalluq ci sëriñ loolu fi ma ko teg mooy sëñ Moussa dafa laaj sëñ Mbàkke Bousso ne ko ndax lii tax a aju ci sëriñ bi mooy nga ñëw cib sëriñ rek ne ko jébbal naa la saa bopp tàllal ko loxo mu ñaanal la ndax loolu rek moo koy maye sëñ Mbàkke Buso ne ko déedéet taalluq mbirum xol la moo xam ni wax dana ko tegtale waaye jëf dana ko tegtale ne ko nag hadiya ak euh, ak xidma mooy liggéeyal ko nekk ci ay service di ko liggéeyal liggéey boo xam ne yàlla rekk a tax loolu bokk na ci dara gënu ko mën a may mën a firndeel ak taalluq mu aju ci sëriñ bi ñaar yooyu bokk na ci li koy téye ki nga xam ne alal dafa dafa jege boppam borom nit ñi dañoo bëgg alal wa tuhibbuuna al maala xubban jamma la suñ borom wax ki nga xam ne yëkkati alalam ju bari di ko def te yàlla rek tax bëggul ku ko gis kooku loolu day teg tegtale ne kii aju na ci moom loolu day màndargam aju la màndargam jaayante la màndargam itam bëgg na itam ki koy defal moo tax sëñ Tuubaa sëñ Mbàkke Buso tontu ko ne ko walaysa samma walaysa samma dalilun ala taalluqi azharu min alxidmati walhadiya li annahuma min siyam almutaalliq min siyam almuta mutaalliqina ba tey bokk na ci lii maye taalluq boobu aju googu mooy mubaayaa mooy jaayante jaayante ni ma ko waxee moom lu fi yàgg la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu fi nekkee di wootee diine jii ku saa ñëw bëgg a dugg ci lislaam da ngay ñëw jaayanteeg moom mu nongul la jaayante gi nga jox ko loxo mu jox la loxo ngeen fasante kóllëre rek topp ko ci lépp lum la digal bàyyi lépp lum la tere bakkanam nga di ko jote sa bakkan yow maanaam sa bakkan bakkanam gën la sa bakkan loolu suñu borom wax na aay yu koy nuru ci alxuraan ba tey laqad radiyallahu anil muminina iz yubayi'unaka tahta shajara inna alladina yubayi'unaka innama yubayi'una allaha yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankutu ala nafsi wa man awfa bima ahada alayhi llaha fa sanuutihi ajran azima yonent bi sax àgg na ci wax ne man maata wa laysa fi unuqihi bayatun maata miitatan jahiliya képp koo xam ni bi ngay faatu jébbalu woo jaayante woo kenn yow deewug jaahil nga faatu moo tax ak jaayante lu am solo la kenn waru koo caaxaane yonent bi sallallahu moo wax li ci xadis boo xam ni imam muslim moo ko nettali ak ñeneen xadis gënu ko wér wax ne képp koo xam ni dund nga ba dee te jaayante woo fenn deewul jaahil nga fa nga faatoo te deewul jaahil yaa ngi ci yàlla moom la sëñ bi wax ne fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday cheikhin fa yalxal fa yalqal mihana li anna man adima cheikhan murshida fa cheikhu cheytaanu xaytu qasada képp ko amatul sëriñ seytaane mooy sam mooy sam sëriñ nit du du du ñàkk ab sëriñ moom léegi sëriñ boobu yi nag boo ko amee ba noppi sëriñ Tuubaa wax nañu ni ñuy jëflanteeg moom mooy da koy doxale sa digganteeg sa boroom di def lépp lum la digal di moytu lépp lum la tere te gëm ne lépp lum la digal yàlla la ko digal waaye lépp lum la tere nga gëm ne yàlla la ko tere sëriñ Tuubaa dara wax ni képp koo xam ne loolu la fas ci sëriñam lii ma wax faw dana jariñu tey dana jariñu ëllëg itam bokk na ci ni ngay doxee moom it te sëriñ bi wax na ko mooy sëb sëriñ bu la woowee na nga gaaw a wuyu te bul xaar dara bul seetantali dara itam ci mbiram saa yu la diggalee itam na nga gaaw jëfee te bul xalaat sax ci diggal li ànd ak rafet njort ci moom te bañ koo diingat bañ a amee naafiq te mooy ànd ak moom ci kaw gi sa xol bañ a ànd ak moom loolu dana dafa xam ne dee su àndee ko sëriñ waaye Sëriñ Tuubaa dara wax ne sëriñ bi ngay àndal nag daa a tànn wax nañu ay xeeti kilifa yoo xam ne wax na ne bul ànd ak ñoom wax na ne wa kullu man raayta yastaalil abid min al masayixi fa dahu yaa murid képp koo gis yitteem di bëgg a féete kaw ñépp mooy yëg boppam am dara ci rëy kooku bul ànd ak moom wal taxdaru soxbata kulli fasiqi idaka bil muridi xayru laayiq képp koo xam ne ak caay-caay dafa nekk ci moom kooku it bul ànd ak moom koo xam ne itam adduna mooy yitteem ak xemem-xemem adduna yi itam bul ànd ak moom loolu si tubaab ko wax xëy jaayanteeg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bàyyi sëriñ sëpp bàyyi tariqa yëpp teew nag mu daa jëfandikoo wér wér tariqa yi keroog ba mu jaayanteeg rasulullah sallallahu alayhi dafa wax bind na ci xasida yu bare bare ci jaayante gi mu jaayante gi at mu ne mu daa màggal guddi di ci ay ay ay waaye dafa wax ne ala alladi ala alladi taxastuhu wasila laka wa ahwa fi'lahu wa qiila jaayante gi mu jaayante ak rasulullah sallallahu dafa wax ne dama yonente bi jëfam dama ko bëgg ba mu gënal ma lépp lu may lu may jëfam waxam it dama koo bëgg ba waxam gënal leneen lu may waxam kon loolu noonu la ñuy ànd ak sëriñam sa sëriñ na la waxam ak i jëfam gënal leneen lu may loola bul àgg nag ci xeeb sëriñu keneen waaye sa sëriñ moom na ko fonk doyob fonk sëñ Tuubaa bi mu jaayanteeg rasulillahi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yaa sayyidi yaa rasulallahi yaa garadi inni ladal baabi kal masfuudi fi qarani dafa wax yonte bi ne ko maa ngi ci sa buntu mel ne ku ñu jéng aw mag ñoddi aw mag jañ du ma yëngal du ma def dara lu may ci sa ndigal noonu nii rek lees yi àndee ko sëriñ bi mu ko àndeek moom ba di ko liggéeyal itam liggéey bi dafa wax yonte bi ne ko dara taxul ma lay liggéeyal du benn intérêt wala lenn lu may dàkk mbirum àdduna amu ci sa ngërëm rek moo tax may liggéey li may liggéey yaa akramal xalq inni xaadimun laka ma ahya bi madxin wa dabbin bil qasidaati walam urid zahrata dunya allati iqtatafat yada zuhayrin bi ma asna min abyaat balim tadaxtuka yaa mawlaaya mubtagiyan min ka rida kon ci roy sëriñ bi ni mu àndee woon ak bi noonu yi rek lañu ñu war a royee ni ñuy àndee kilifa yu baax yi ñu yàlla booleel kilifa itam boo àndee moom di ab sëriñ danga war di topp ndigal bàyyi tere wa xaysuma amarakal murabbi fam tasilil amra tasil li rabbi suñu tubaab di wax ne ngir nga àgg ca ngërëmul yàlla faw sëriñ bi la yàlla boole lu mu la digal nga def ko lu mu la tere nga bàyyi ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu yi lan lan doon digal asama wa taa suñu borom ci alquran dafa wax ne ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi cheyin fa rudduhu ila allahi wa rasul war rasuli in kuntum tuminuuna bi la wala fay wa ulil amri minkum ji mooma ci ñor te mooy dangay ngay topp suñu boroom ci kaw jaare ko ci kilifa gi nga xam ne moom la yàlla boole kilifa woo gi nag wax naa la léegi ne la sëñ Tuubaa dara wax ne nanga nga ko tànn dayob tànn bul def ku jug rek nga ànd ak moom boo xasee tànn ko nag ba noppi nag na nga bàyyee sag tànn ci tànn moom fonk ko def ko sob sang di ko fajali aajoom ak yitteem lu mu la yónni nga dem ca bañ a tàlli fi kanamam mooy di fo ak ree te bul geesoo ko yëngutu ci kanamam te say wax na néewu fi wetam boo àndeek moom it na koy màggal jox ko cër bu mat sëkk lépp lum la digal nga di ko def loo saa yoo yoree dara itam loo ko mën a defal ëddiya nga di ko ko defal te yàlla tax loolu yi boo koy def bis dana ñëw mu xool la bëtub yërmaane boo xam ni sa mbir mën na caa jage waaye nag Sëñ Tuubaa daa wax ne ba mu def ak mooy yàlla ak mooy yàlla bul ci ànd bul ci topp mbindeef moom wa bil maasi laa tuti maxluqa loolu la mooy yàlla bul ci topp mbindeef yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam loolu fi ma ahabba wa karih illa an yu'mara bi maasiya fa in umira bi maasiya fala sam'a wala taa'a del topp ndigal di bàyyi tere ba keroog ñu lay digal nag ak mooy bu ñu la digalee loo xam ne mooy yàlla la bul topp ndigal boobee bul bul bul ko tere bul bul diglu tere loolee itam léegi nag jikko ay murit ngir njëkkante waxtu wi rek ñu ñëw ci loo xam ni murit bu ne war na koo jikkoo te Sëñ Tuubaa wax ko loolu it mën nañ ci jël yenn bayit du nekk ci biir Masaalikul naan rek te mooy li mu wax ne kan ardi yurma fawqaha kullu qabih wala turi min batniha illa manih yata'uha alkarimu wallaimu walbarru walcaasi wa tastadimu wa ka saxaabi wa ka qatri almaai fi dilli wa saqi bila istisnaai mooy murit dëgg-dëgg day amee jikkoy suuf suuf lu waay buub xëpp ko waaye saa yoo lu am solo rek lu baax rek mel yi baax yi ak mbooleem xéewal yi ci suuf la sëñ bi wax nag ne murit jooju jikko lay am mën nañu yàq sa der mën nañ laa wax lu bon mën nañ laa dëkkale foo dëkkut waaye loolu lépp na nga ko muñ te yàlla tax te bul ci topp kenn dara mer sax bu ko ci def boo ko mënee loolu sëñ bi wax digle te lu jafe nag la moo tax murit yombut moom waaye nag nañ fexe ba ku dugg ku dugg ci sa biir lu rafet rek lay gis mu teg ci ne suuf gis nga ñépp ay jaar ci kawam ku baax dana ko dëgg ku mel ne leen dana ko dëgg waaye toujours danaa dégg rek ku ñëw ànd ak moom mooy dana mën a ànd ak ñépp nekk noonu itam suñ bi doo wax ne murid dëgg de day am jikko asamaan asamaan buy taw ñëpp lay tawal du xool kër yi ñi baax mu taw fa bàyyi ñi bon déedéet ñëpp lay maasale xéewal gi murid itam xéewal yi mu yor te di ko defal mbindeef yi da leen koy defal la ngir yàlla mooy yàlla lay jëflanteel yàlla lay jox yàlla lay xidmaal moo tax ki ki muy jaar ci loxoom bu mu ko seetlu mën nga koo defal ku baax mën nga koo defal ku mel neneen mën nga koo defal sax ab yéefar wala ab jullit yow defal ngir yàlla rek loolu bokk na ci jikko yi gën a am solo ci jikkoy murit moo tax sëñ bi daana wax ne murit dafa am barrage yoo xam ne ñoo koy tënk ba du mën a dem ca yàlla mooy ay xujub ay kiiraay kiiraay yooyu nag da nga ko war a bët kiiraay yooyu nag suñu tubaab wax ne juróom benn kiiraay la qul kasratul akli wa kasratul sharaab summa mulaqaatul baraya bi istihaab wa kasratul kalaami kasratul manaam mooy bi njëkk ci barrage yi nga xam ne ñoo dox sa diggante nga àgg suñu ne mooy lekk gu bari murid dëgg day néewal ak lekkam suñu tubaab wax na bu yàgg ne malaayika yi buñ gisee murid boo xam ne day xéewlu lu bari dañuy jooy ngir yërëm ko xam ne murid bii du am li mu bëgg ak lekkam du bari faw mu néewal bari waxuñu bul lekk waaye sag lekk bu mu bari ba ëpp <coughs> ñaareel bi mooy naan gu bari ak wax ju bari ak nelaw yu bari ak jaxasoo bu bari rawatina góor ak jigéen loolu yi suñ tubaab ko daaye day mooy yi gàllankoor murid yi moo leen tee dem bokk na ci li ñuy xàmmee murid itam mooy la ca jiitu mooy mu bëgg ab sëriñam bëgg bu wér ci xolam xam nga bëgg moom bu dëggee bu dëggoo rek ñëpp danañ ko xam ci yow ndax day am ay jeexit bëgg du lu ñuy nëbbu bu dëggoo rek ñëpp danañ xam ne yow ku bëgg kee ndax lu mu waxtu du ko la ci topp mooy def ay ndigalam bàyyi ay tereem te bañ a diingat loolu waxoon naa ko du tax duñ ci taxawaat murit Sëñ Tuubaa di wax ne bokk na dañ koy xàmmee mooy xolam xol bu bu bu bu gaaw a tooy lay doon daa ne xal xalbul muridi kal madar wa xalbul maridi kal xajar xolub marid mooy ku dul murid safaanu murid kooku moo ko doja yam dara mun koo tooyal xolub murid nag saa yu xikma bu jógee ci suñu borom ñëwee rek da koy tooyal bokk na ci li ñuy xam ne murid mooy lépp lu mu war a def tey du ko jëme ëllëg du ko xaare ëllëg fa saadiqul man yanqalibu bi xukmi waqtihi wala yartaqibu amaamahu waqtan Sëñ Tuubaa itam képp ku mas a moom am na yoo xam ne dala ko daa digal yooyee léeg damay wax ne ndigal yi mooy jëmmi ak murit murit su doon buñ ko doon misaal ci jëmmi doomu aadama mën nañu wax ne jëmm ji ngay séen mooy sariya bu tegu ci alquran ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi ruux gi ci biiram mooy ay teggin sirru mbir mi nag sirru jëmm ji nag mooy ak bëgg nag kon jëmm ji mënu cee ñàkk te mooy tegu ci sariya ak topp ndigal yi bàyyi tere yi ndigal sëriñ bi nag la ca jiitu mooy xam alayka yaa muridu bi taallumi lépp li nga war a jëf ci diine nga fexe ba xam ko loolu sëñ bi wax na ci lu bare bare bare bare bare bu loolu weesoo la nga xam nga jëfe ko mooy di jaamu yàlla yaa ayuha nnaasu ubudu rabbakum bi ma bihi xayrul wara jaakum sëñ bi wax na ci lu baree baree bari bokk na ci li nga xam ne sëñ bi daana ko digal murit yëpp itam nga xam ne murit bu ne war na cee góorgóorlu mooy jàng alquran sëñ Tuubaa dara wax ne kullu muridin bi yaluudu fal yudim tilaawatan li xayri dikrin xat bokk na ci li ñu xàmmee murid yi mooy ñoom toujours dañuy jàng alquran te yoonu jàkk ja dañ ko miin sëñ Mbàkke bu sayid noonu la misaale murid yu njëkk ya dafa wax ne laa yaarifuuna siwaa siwa risyaadi masjidihim aw darsi alwaahim wal biir bir juradi niñ leen di xamee mooy waxtu wu ne leen rek lañ xam ñoom murid yi mooy dem jàkk ak jàng seen i ak jàpp seenu njàmbur ak liggéey bokk na ci li nga xam ne sëñ bi daana ko digal nga xam ne ñi nga xam ne ñoo jël wirdam sax sart la ci ñoom mooy xiyaamul layli mooy fexe bay dundal guddi gi ak lum néew néew ak lu mën a toll rek ak saxoo tudd yàlla tudd yàlla sëñ Tuubaa dara wax ne mooy lekk lekkuk murid bi yaa yuhal yaa yuhal muridu laazim dikra man yadkuru man dakarahu taxwil aman waalam bi anna dikra quutul qalbi tudd yàlla mooy dundug xol mooy dundug ruux loolu sëñ Tuubaa daa moo tax mu daa wax ne xayru taami lil muridi saliki dawaa mu dikri del jalaali maliki murid genn lekk la war a am muy tudd yàlla saxoo ko tudd yàlla nag bari na jàng alxuraan tudd yàlla la jàng xasaydi xasaydi sëñ yépp tudd yàlla la jàng lu mel ne wirdul maaxuus bi ñu waxoon tudd yàlla la laa ilaha illa di ko zikkar loolu tudd yàlla la istigfaar ak salaatu ala nabi yooyu yépp sëñ bay Jaxate waxoon rek murit dëgg yombul la yombay nga wax ne man ab murit laa te doo ab murit li waxit ne li dee metti metti jotul ak murit loolu buñ seetlu waxtaan wi ak melo yi nga xam ne sëñ bi melal na ko ak murit gis nañ ni lu yomb waaye ci njëlbeen nga waxoon naa ni ñaari xeeti murit ñoo xam ñoo xaw a am ci jamono ji mooy ñu néew ñoo xam ne seen yitte mooy dab gaaña ñooñu moom seen dañoo war def yitte ci góorgóorlu ci melo yooyee ba jotee waaye am na ñu mel ni man ñoo xam ne dañoo teel a xam ne ñoom mënuñoo dabe moom teel a xam ne lompañ nañ lott nañ mënuñoo dem ñooñee nag buñ farloo ci bëgg sëriñ bi rek ak bëgg mbooleem ku bëgg sëriñ bi ak mbooleem nit ñëpp rek bu ma waxee bëgg sëñ tubaa nag buñ fàtte ne bëgg sëñ tubaa ci kaw bëgg rasulullah sallallahu alayhi lay lalu ñaari bëgg yooyu itam bëgg sëñ tubaa bëgg yonte bi mënuñoo eh, teqali ko ak bëgg yàlla bëgg yàlla moo koy lal yooyu yëpp bëggoo gi nag ki nga xam ne wóor na ko ne mënta dem mën naa rek def xolam ci sëñ bi te moytu tooñ moytoo jël xaqi kenn moytoo amal benn maanaam moytoo lor benn jaam rek la des diggam ak boroomam loolu moom insha allahu taala buñ demee sëriñ bi ci mbaaxam ak yërmande mën na ko xetli ba dimbali ko ëllëg sëñ bay jaxate damaa gis dafa am mbas mu mas a xew ca njaareem yaakaar naa ndax Sëñ Tuubaa yu bare bari bu masaa xew du jëkkee rek ñaan yàlla jële ko fi day bàyyi rek ba yàlla jëleel ko fi boppam am lu xew nag loo xam ni sëñ bi daa bàyyi rek mbas mi metti lool sëñ bay ñëw ba jàkkaarloog sëñ bi ne ko ndegam gaa yi bay daala xal seeta añ ku xam gaa yi dul bay bay fu ñuy lekke kon bu fekkee ne yow Bàmba may yii nga yor ñi gën rekk a ciy jot na ngay def ñi bon maanaam bu fekkee ñi jëf ak ñiy góorgóorlu rek ñooy mucc ëllëg kon ñii ñi ñi mel ne noonu kon fu ñu jëm loolu la wax sëñ bi xasida gudd la gu am solo ne ko te yaa yor cëru gaa yi baax ak yi bon faral jox ma jox ñépp jox ñi fi man du la a tax nu jug ñu jug ñëw fi yow kat lu dul sa yërmaane yërmaane lan seenu noonu danga bay ba xëy dagg say dagg yow nu ñëw wër la nag kàpp def tey sa gan te noo ngi di yalwaan a koy wut ci yow wér ak mucc ak barke ak gudd fan te boo nee balaa kenn am lëf ci man dafay mel ni man bun yeboo ñibbi kon ne yow doomi nit dootu mel nii nga mel te giñ naa ne wax ji sore naa ko fen waxal nag ci mbas mii sa nit ñaa ngi jee tinul ñépp yow boo tinoo yàlla tin te nit ñépp a ngi di yox yoxee kay ragal jugal rambu mbaa gëm yi dem nit ñi de nit ñi bon bu ab sàmm ne cel jur gépp bu jur gépp jeexee lu muy sàmmi kon ba nuy dëddu kër bàyyee kii ndey di ñëw wutug mucc ca tax mbaa lu nuy wut kon xasida gu am solo la xam ne gàttal bi mooy du ceegee ni ñiy góorgóorlu kese ñoom rek ñooy mucc ñi des ginnaaw it te bari yi sikk ñooñ it faw ñu yaakaar ci sëriñ bi ginnaaw buñ góorgóorloo nag ci seen digg ak nit ñi ñu bañ leen a ameel àq bañ leen a lor maa ngi jégalu bu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa